asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com mu dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se euh, nga xam a xam seen waay euh, seen waay mooy Serigne Ahmadou Ndiaye ko présenté ndax ku ne xam na ko ci njàngam xasida mu am solo moo xam se ne mi ngi koy def euh, a sikk ak moom ay waxtaan yu yaatu waaye tamit laata waxtaan a dugg suñu waxtaan Serigne Ahmadou maa ngi lay nuyu soxna si maa ngi lay fay bu ginnaaw bi nga nuyoo ba pare comme que jataay bi tamit euh, dañ koo baaxoo di ko ibbi ak njàngum xasida ñu daal bëgg nga daan yëkkatil tamit njàngum xasida mi pare ñu soog a dugg suñu waxtaan salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si ñoom lay nuyu bu baax lay siyaare di siyaare mbooleem ñi ngi bokk liggéey bi di ñaan ci barkeb Serigne Touba Cheikh Mountakha Serigne Bassirou yàgg fi loolu de wér ba li muy yéene liggéey Serigne Touba mu def ko nu mu ko soobee ci barke Serigne Touba ñoo ngi siyaare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sana ilahi bil munajati wa abadan ahna yadi anhati dal alay al ulama wal awliya man la yasalu quwwati wa awliya xasidati faaxat xasaidal kiraam wali taquudu abadan xayral maraam hadiyati muqjilatun kulla maleek kaana munaasian wa axsaahu maleek maa tawajju nasaara allahu lii bi laa ilaaha illa allahu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin macha allah ngir daal di koy dégg noonu ci xasida bu am solo boobu nga xam se ne sëñ Ahmadou Ndiaye moom la daal di ibbee li nga xam ne moo di jataay bi sëñ Ahmadou boo ñu doon wax sëñ Ahmadou Ndiaye kan mooy sëñ Ahmadou Ndiaye. waaw soxna si loolu de yomb na Ahmadou Ndiaye taalibe Serigne Touba la bu dëkk fii ci Touba waaye cosaanoo ci dëkk ba ñuy wax Gàddiyel ci boori Pekes foofu la juddoo foofu la yaroo waaye nag Touba gi li fi indi ñëpp rek moo ko fi indi yaakaar sëriñ bi gëm ko doyloo ko mu njëbi si Touba féete ak sëriñ bi kooku mooy sëñ Ahmadou Ndiaye. waaw macha allah sëñ Ahmadou ndax mën nañoo xam tamit eh, sëñ Ahmadou ci ban année ci la daal di dugg ci li nga xam ne moo di njàngum xasida mi waaw soxna si loolu de xam naa ni dat ba moom xam naa ni dana ma dana ma kii waaye xam naa ni 90 daal lu ci topp moom ndéem fekku ci sax. xam naa ne moom fekk na ma ci waaw waaw. waaw euh, ndax mën nañoo xam tamit euh, sëñ Ahmadou ginnaaw bi nga duggee ci njàng mi tamit euh, kan nga jot doon roy. waaw bi ma duggee ci njàng mi nag roy naa fi Serigne Khadim Gueye moom laa fi roy ba yàlla dogal nag ma jaar sama fii ma jaar nii nga xam ni ku ko dégg xam ne Ahmadou Ndiaye koy jàng loolu yàlla dogal nag. ndax man nga ñëw dikkalaatal tamit ci kan nga doon àndal. waaw ci njàng mi nag yàlla dogal na Serigne Mouhamadou Mara Seck moom laa doon àndal ci xasida yi muy sama mbokk di sama xarit di sama jëwriñ moom laa doon àndal ci xasida yi nag. nga topp ko ci ñaata at. xam naa mat na fukki at ak ñett fukk ak ñeent aw naa ko topp ci ginnaaw waaw loolu de mat na ko. lan moo waraloon fi mu toll nii nga roy Serigne Khadim Gueye ba fi mu toll nii dañuy wax ba xam euh, ñu bari dañ naan air euh, Khadim Gueye sax moom nga yor moom nga topp continuer nii di ko roy ba tey wala maanaam da nga jël air. waaw airu continué wu ma ko heure bi may jàng nii dafa maa dikkal rek ma di ko jàng waaye du heure suñu xaalis mi ngi waaw sëñ Ahmadou euh, tamit bëgg nañ nga daal ñuy dikkaatal ci li nga xamante ne moo di njàng mi bi nga nekkee ci njàng meek léegi mën nañoo xam ñaata cassette enregistrement yi nga xamante ne moom lañ doon def ñaata cassette nga ci def jot a def. waaw enregistrement bi de jot nañ cee def ñetti kaset enregistrement waaw def nañ ci ñetti cassette waaw benn bi madal xabiru la benn bu wolofalu sëñ falu la. beneen bi ci des semmine minallaahu la euh, macha allah ngeen dégg ko noonu mu nekk xasida yu am solo moom la daal di euh, kii noonu euh, ba tey sëñ Ahmadou mën nañoo xam tamit ci ban année nga daal di njëkk fanaane baas ñu tàntal la ko ngir nga war ko fanaane. waaw loolu de moom xam naa ni su ma juumul 94 la 94 waaw. booba ba nga waree fanaane baas ci lan la def ci yow. xam naa loo jëkk def day moom dana doy waar. waaye bañ jógee ba ci biir de sëriñ bi may nañ ci ndam lu koy loo xam ne fooguñu ko ci woon sax nag waaw. Ah, waaw euh, sëñ tamit euh, ba tey bëgg na ma dikkaat ci njàng mi comme tey ji ko ne am nga ay soppe ndax euh, tey jii boo ñu doon wax tey ji ñi nga xam si ne ñoo la sopp di la jot di la roy ji boo ci doon xool ñu naan kon deuxième Ahmadou njaay kan la ciy doon. waaw xam naa bari na ci lool nag. bari na ci lool ñu si jàmbaare waaye ki ñuy wax Seex daal ñu ko gën koo xam ci Baay Seex mu dëkk fii ci Hizbut Tarqiyyah yi xam naa ne moo ci gën a siiw ci ñi may ñi may rey bari na ci nag ba Saalum Saalum sax dañ fa bari lool waaye ki ñuy wax Seex Laam daal xam naa moo ci gën a moo ci gën a fasante waaw euh, ba tey euh, ki ñuy wax Seex moom mi ngi ber yoonam wala. waaw moom nag ci air bi lay jàng. Ah, waaw waaye mi ngi ci yoonam nag waaw. waaw ba tey sëñ Ahmadou tamit euh, man nga ñëw dikkalaatal ci tournée yi nga xam se ne yéen jànkal yi yéen koy faral mooy muy tournée internationale xam naa bu ma dee wax tamit ci inter bi fi laay ndax euh, tamit bëri na looy def ay tournée ci inter waaw na nag ndax Sénégal gi yaakaar naa bu ma jumul fuñ ci demul moom xaw ko wax dëgg yàlla. yan euh, région moo ëpp ci ngay tournée ci ay tournées internationales. waaw li ko dalee Kajoor daal. Jërëm Saalum. Ziguinchor waaw côté yooyu daal xam naa ni. moom wax dëgg yàlla macha bu dee ci eh, inter bi nag. waaw dem nañ ci ba ko d'Ivoire dem fi Mali waaw yooyu daal dem nañ ko. Mhm. Ah, ndax soppe yi tamit li eh, nga xam si ne moom lañ baree ci réew mi tamit eh, est-ce que noonu lañ baree bitim réew waaw am nañ ci nag ndax groupe soppe yi ni mu amee fii nii la amee bitim réew nga xam ne dañoo jokkoo sax doon benn di tënkandoo di nasandoo waaw. am na ci waaw. waaw sëñ Ahmadou ba tay tamit euh, ku wax euh, njàng mi ci jànkat yi wax tamit fi mu toll nii macha allah gis nañu ñu daal di bare euh, macha allah sax comme ni ma jiitale sàng waaye tamit naka nga daal di gis njàng mi xam ne ñooy ñi yi di dox di ñëw. waaw njàng mi nag daa am loo xam ne dogalu suñ borom la bu la dabee da xam ne dalaa dab rek ndax Ahmadou mi wax ak yow tëbul tëb jàng rek man jàng naa ministre ba man ko. jot ci samay diplôme beru ci sama at lee juróomi at jàngal ci nit bañ am diplôme waaye damaa dem ba dem ba nag yëf yi moomatuma ci sama bopp ma féeteeg lii waaye tëbu moo tëb rek nekk jàngkat waaw. loolu loolu am na. ba tey eh, ba tey ban jàngat tamit nga ci am ndax gis nañ ne comme ça ni ma la waxee léegi ñi ngi dox di ñëw waaye est-ce que tamit ñi ngeen di xool ñuy dox di ñëw am na si ñoo xam si ne ak bëgg tamit ñi ngi leen ci dugal am na ñoo xam tamit bëgg siiw dugal na leen ci est-ce que ñëpp tamit fi mu toll ñi ngi tegu ci yoon woo xam si ne yaa ngi leen di xool yaakaar na ñu ci jukkee jànkat wala daal. waaw xam nga daa am loo xam ni du neex a wax lépp waaye koo xam ni doon nga mu kàllaf doon sama gum boo jógee xam nga li la arrangé ak li la arrangé wul mbir bu jógee bu awee yoon te baax ñëpp dañ koy bëgg a doon waaye suñ borom mi tànn nag day tànn ñoo xam ne ñoom moom lay féetal ak ñooñu bu ko defee nag bu la ci yàlla boole nga xam ne yow ci nga bokk boo ca bokkul nga jéem a nekk ci leneen di ci yëngu ba kere suñ borom boole la ca nga nekk ci. waa mm, waaw sëñ du tamit eh, ñu daal di dikkaat tamit macha allah ngeen déggoon ni ñu ànd ak moom ci jotaay bi mi ngi répondre question yi nga xam si ne ah, moom lañ koy laaj ba tey waaye tamit ñu daal di dikkaat ci sa àddina ah, kuy dund mu nekk am nga lu la naqari lan moo la gën a sa àddina loo xam si ne boo koy xool sax dafay daal di des ci yow. waaw loolu de moom bëriwut li ma gën a naqari sama àddina de mooy li ma yeex a doon jàngkatu xasida uh-huh. li ma ko yeex a doon loolu moom ma gën a naqari sama àddina li ma gën a neex sama àddina nag. mooy bis ba ma jëkkee toog yor micro ma xam ni ne jàngatu xasida la keroog yëg naa loo xam ne neex na ma lool wax dëgg yàlla waaw euh, sëñ Ahmadou dégg ngeen ko mu daal di boole ñaar question yi nga xam seen ki woon boole na ko <laughs> far def ko benn <laughs> muy benn question euh, ba tey sëñ Ahmadou tamit bëgg na ma dikkaat ci li nga xam ne tamit fii la jamono toll ndax kenn du wax tamit ba ba daaneel euh, te duñ ko ci boole muy Covid 19 bi ak fi mu toll muy mbas mi surtout yéen jànkat yi ndax gis nañ bare na yi ndax xam naa bu mel ne jët jët gëj ngeen a toogee jataay yoo xam si ne yeneen koy toog di ko kii noonu ndax ko ne xam ne ne rassemblement lañ ban bañ te yéen jànkat yi loolu mooy seen kii naka nga ko daal di dundee ci loolu moom de soxna si loolu de xaw naa métti lool ndax ku amul lu dul lenn ñu xañ la ko dana métti ci yow ndax jànkat yi amuñu lu dul xasida yi ñiy dégloo di taalibe Sëñ Tuubaa yi amuñu lu dul xasida yi waaye nag dañoo daal di jël suñu bopp rek wéer ko ci sëriñ bi nga xam ne moo ñu féete fépp lu métti la nag lu ñu yëg la waaye sëriñ bi doxa na ci ak ñun ñoo xam ni koy na njort loolu Sëñ Tuubaa seer na loolu waaw mu mel ne tamit euh, comme ni ma bëgg a laaj euh, comme quoi ñëpp la laaj waaye ni ma la waxee léegi yéen jànkat yi laal na leen bu baax a baax euh, ndax ku ne soxla nga jàppale waaye tamit surtout yéen jàppale gi nga xam si ne njiit réew mi ko doon wax muy dund gi est-ce que yéen jànkat yi tamit ngeen seen wàll waaw loolu nag moom xam naa ni ko ñëpp déggee ni lañ koy déggee gisagu leen gisuñu dara waaye taalibe yi Sëñ Tuubaa yi ñu yi ñu boole yi ñu booleel daal moom wax dëgg yàlla jàppale nañ ju wax dëgg yàlla jàppale nañ Ah, lan ngeen di wax ak nguur gi comme quoi tey yéen a ngi jàkkaaroo cameraman yi tey bu ngeen dee wax lan ngeen di lancé pour ñu war leen ko mën a jàppale eh, ci comme quoi maanaam mbas mi tamit am na lu mu ah, ci yéen. waaw xam nga daa am loo xam ni du neex a wax ndax nit ki bu fekkee ni doomu aadama nga bokk ci réew mi doon citoyen ñëpp xam seen tolluwaay seen dayo ci réew mi te mënuñu leen a reconnaître daa am loo xam ne day doy waar. ba tax na moom duñ mën a wax ak moom yenn kàddu yu sori waaw duñ kàddu yu sori moom duñ ko mën a wax ak moom waaw ndax duñu xam fu ñu koy jaaroo la nuñ ko koy mën a waxee daal. <laughs> dégg ngeen ko noonu <laughs> ni daal di tontoo sëñ Amadou bëgg na maa dikkaat tamit ci njàngum wolofal mi euh, comme ni ko jànkat yi defee ndax sëñ Amadou Ndiaye bëri na loo xam si ne dina koy def ci njàngum wolofal. waaw danaa koy def de njàngum wolofal de danaa koy def waaye li ci ëpp bala ko def. damay jàng ba set ba ñu julli ba mu leer ma door a def wolofal yi. waaw li ci ëpp daal loolu laa koy defee. Uh-huh. Ah, ndax yow boo dee def wolofal wolofal yi ngay jot di def dañ la koy bindal wala yaay ji bindal sa bopp. wolofal yi nag moom bindagu benn laa ci bindagun de muy wolofalu Serigne Mbacke Soxna Lo moo defoon waaye yi ci des yëpp sëñ Moussa Ka koy def wala leen taalibe Serigne Touba rek waaw. waaw moom maa ko defal waaw waaw mën naa ko def waaw mën naa ko def waaw. xerewlu leen nu delloo martial sëriñ Mbàkke soxna loo sambar ma teela wuy ji Yàlla mag su ngeen dégloote ma jooy fi jooy xol ngir Yàlla sëriñ Mbàkke soxna loo sambar ma téele wuy ji yàlla Mbàkke tey ji ma jooy ko jooy xol ngir yàlla sëriñ Mbàkke soxna loo sambar ma téele wuy ji yàlla addina mi war nga nu war nga sa boppooy sëriñ Mbàkke soxna sunu waaje dem na Mbàkke àddina mi bu doon këruug sa xoot yaale wallaay kon sëriñ Mbàkke soxna loo deefu ko jaale Mbàkke noppee joxe moom bu doon te laqoo wallaay kon sëriñ Mbàkke soxna loo du laqoo Mbàkke Taif Mbàkke juuy na ko baser baatam baa ngir ñàkk jiwaay sëriñ mbàkke soxna loo daa teela wuy ji yàlla sëriñ mbàkke soxna loo sëriñ mbàkke soxna loo sëriñ mbàkke soxna loo may nanu dalal xol yi seral xol yow yaa di sëriñ seex mbàkke sëriñ moodu mustapha sa maam na ci yow mi ku sopp sëriñ mbàkke soxna loo xaadim rasul samaam moo la tëkkal garaati sëriñ seex yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa teeru ak maamam Moustapha sëriñ Mbàkke soxna loo ay Mbàkke daate la wuy ji yàlla macha allah ngeen dégg ko noonu olofal bu am solo la mu daal di ko yëkkati eh, jëmale ko sëñ Mbàkke soxna Lo eh, mu nekk olofal bu am solo eh, sëñ kii sëñ Ahmadou Ndiaye comme que askan wi tamit lañuy laajal doo fi toog ba jug ah, te laaj la tamit kan mooy sa buntu ci Serigne Touba. waaw soxna nag li nga laaj lépp loolu ma ci daxal man sama buntu Serigne Touba mooy Cheikh Mourtala Amar moom Serigne Mor Farouma Amar ca Gaddeel sëñ Mourtala Mbàkke tudde ko boppam yaral ko boppam jàngal ko defal ko lépp. ci euh, comme ça ci amar amar yi la bokk naar yi la. waaw ci naari dar maa ngi koy daroon Seydouna Mohamed ñoom ñu wërwër di ko war daraat Serigne Touba ci la bokk. Ah, oh, macha allah ba tey sëñ Ahmadou man nga ñëw dikkaatal ci sa relation ñi euh, nga xam si ne ñu ngi koy gisee ndax yaa ngi am ak relation ñi nga xam si ne ñoo di politiciens yi wala. waaw soxna si nag loolu moom xam naa ni aw ma ko relation politiciens yi moom wax dëgg yàlla aw ko. xam naa. jamono jii ma toll tolluwaay bi daa jëmul ci ñoom rek waaw waaye du dara xeebuma leen te waaye jamono bi ma toll moom sama tolluwaay jëmul ci ñoom. wax nga dëgg am nga c'est plein droit ba tamit buñ la dee laaj ñi nga xam seen ñoom nga si xasida yi mooy jàkkati xasida yi seen diggante ci relation bi tamit naka la daal di demee. waaw loolu de moom sawar naa ci jànkat yi moom samay xarit lañu samay wëllëre lañu ñoom laay waxal ñoom laay defanteel li ma defanteeg ñoom ñëpp nag. ñépp jox nañ ma wàccuwaay bi ma am waaye li ñu am ci man jox naa leen ko mu jeex tàkk sama lépp lañ wax dëgg yàlla waaw. waaw ba tey sax damay gis sax ci yéen jànkat yi eh, li nga xam se ne da koy faral di def mooy jànkat yu mag yi da leen di gis ñu daal di dugg ci baas eh, daal di fekkalante seen moroomu jànkat bu mag ñu awalante ko eh, loolu lan moo tax ngeen di ko def maanaam bëgg a wan ne nit ñi benn ngeen wala te boobaa loolu tamit dafay am loo xam se ne da koy def ci ñi nga xam se ne ñoo di baas bi loolu lan lay def ci yéen waaw loolu li muy def lépp soxna si bari na ndax nit buñ koy tudd di la tudd di ci wax yeneen kàddu yu rafetul buñ dikkee fekk muy jàng nga nekk ci ginnaaw ka doon wax dana noppi ku bëggoon a wax ci yéen it dootu am lu muy wax te it séq nañ loo xam ni kenn ku ne war na koo mën a defal moromam loolu ndax xaside yi sëriñ bee ko moom yàlla dogal ñu di ko jàng kon ku koy jàng rek sa morom bu la fekkee nga toog war naa mën cee jàpp ba mu ñoŋ neex ñu la jël si woon kontaan ci yow. sëñ Ahmadou kon tamit ñu bëgg dikkaat ci njàng mi nga xam si ne moom ngay jàng moom mooy njàngum rajas lu ci ëpp moom ngay jàng wala njàngum wolofal mi wala. njàngum aw laay njàngum aw moom lay jàng Ahmadou Ndiaye kay ko xam xam ko ci njàngum aw ànd ak aw katam. di nga faral di def rajas. waaw comme nii mu koy defee nii rek bala maa tàmbali dinaa ko def ku ma woot soxla rajas ma defal la ko. waaye njàngum aw laay jàng njàngum aw nga yow ah, ba tey kon ñu daal di bëgg tamit nga daal ñu yëkkatiwaatal kon ci xas day ba pare kon auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa sallim yasuuru rasulallahi xati bi mawlidi يدوم لنا بسرا يفي خير مولدي وخا إلهي كل در بجاه من لا دار خطي دون لخو مفسدي محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل لو نهم سيدي مرامي من المولى أتاني بلا سن bijaahi safila لمن المحمدي وسخت برب الأرض سعدا له به وما سال قلبي بر ردا سات خيدي لخير البرايا من خلام بسارة ولي قاد تفسيسا بنفس تهتدي داني إلى إحياء isa saani kaw na xoo li xayril wara sarfan awaa kulla suudadi adiyaatunaa tasu lada laayi sarmadan waa nammaa daayil ilaa xafi siidadi awaa nanta aalil xaqi wal xaqu diinunaa bi ixdaami si rusdin hadaa kulla mursadi إلى خير ناتنو مفاسد كلها وتنو لنا خيرا من خير منجدي سببت لخير الله ما لم يلق به وسبع لخير ده مولاي أسدي إلى الله بالمختار وجهت ما به أويت سلالا فين خير مولدي سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا خريب يا مجيب يا بديع oh, macha allah ngeen dégg ko noonu ci xasida gu am solo googu njàngum rajas la daal di jàngal léegi nga xam ne jataay bi jàngal nañ ci wolofal dégg nga njàngum rajas mi nga xam se ne yëkkatiwaat na ko léegi oh, mu nekk lu am solo sëñ Ahmadou ba tey bëgg na maa dellusiwaat sama question bi nga xam se ne xam naa ne moom laay ki noonu ndax am na tamit ñoo xam se ne ñi ngay àndal eh, jot nañoo am ñoo xam se ne ànd nañoo ak ba ber seenu waaw soxna si loolu de bari na moom bari na lool ñi ànd ak man ñu ber seen yoon bopp wax dëgg yàlla loolu sant naa ci Serigne Touba bu baax a baax. ndax mën mën nga ñu waaw mën naa cee wax ñu bëree bari ku demee ni ki Baye Cheikh Lam moom ma la doon wax ak ab du jóob ma sàmba Cissé bu ma limee daal dana bari ak ku ñuy wax Ablaye jaañ ca Daaru Sam bari na daal. waaw wax dëgg yàlla macha allah. waaw ba tey tamit awkat yi tamit euh, ndax man nga ñu cee dikkaatal euh, comme tey jii gëdd bi nga xamante ne war nañ la ko jox wala respect bi ndax mi ngi fi walla waaw jox nañ ma ko bu baax ndax niñ ma ko war a joxe nii laa lañ ko war a joxe ci njiital kuréel bi di sëriñ Balla Kane di sama sëriñ di sama xarit man samay awkat man ak ñoom ay moroom lañu ndax dañ di nawle maa ak ñoom ñooy bokk fu ñuy nekk di waxtaan di sottantey xalaat nga xam ne bu ma defee lu wër danañ ma koy wax niñ koy defee ma leen koy wax ni lañu ma koy waxee sant naa ci yàlla bu baax nag waaw loolu noonu ah, mu nekk lu am solo ngeen dégg Serigne Ahmadou njaay la woon xam naa ngeen daal di koy dégg ni mu daal di répondre ci question yi eh, ñu daal di koy sekk moom muy jotaay bu am solo eh, kon tamit lan ngay tàggoo ak askan wi nga xam se ne ñoo lay topp tamit ci 24 actu waaw soxna si sama xol sedd na sama xel dal na ndax lii nii lu rëy la ci man Sëñ Tuubaa séeréen loolu ndax nit amul lu dul ku ko yëg te yàlla dogal na ni lii nga def nii yëg-léeg la kon yal na la Serigne Touba fay yal na leen sëñ Tuubaa dooleel ba fi ngeen bëgg mu yàgg fa mu yàgg fa fa koo seen jot sama xol sedd na bu baax sama xelit dal na yan na leen sëriñ Tuubaa jàppale mbooloo mi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan di ko déglu maa ngi ñaan ku ko dégg wala nga gis ko muy sang njëgal àddina ak alaxira ni ma ko waxee woon bi may tàmbali Cheikh Muntaxam sëriñ Basiru daal ñoo ngi yaa ñoo ngi ñaan suñ borom yàggal ko fi lool te rusunu fi bàyyi bàyyi ko fi ba ci kanam ba li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa mu yàgg jërëjëf jëf siyaare nañ ñëpp Ah, ok euh, jërëjëf euh, Serigne Ahmadou Ndiaye la woon ngeen daal di koy dégg ci xasida yu am solo yooyu nga xam si ne moom la daal di ubbi ci jataay bi ngeen daal di koy déggaat tamit ci wolofal bu am solo boo woon Serigne Mbacke Soxna Lo dégg ngeen ko moom moo ko bind mu nekk wolofal bu am solo euh, comme yéen ñi koy topp ci boo xam si ne xam sa waay la te xam sa waay buñ ko defee tamit dañ leen di xoolal gars yi nga xam si ne tamit bëgg ngeen koo xam te ñu fees tamit ñu daal leen koy indil ci biir émission bi ngeen ci ànd ak kan soxna Mame Fatou Kébé nii rek la fay daal di demee ndax nee naa leen 24 actu saa su ne dafay daal di yaatal ñi nga xam ne ñooy jàng xasida Serigne Touba yi dinañ leen fekk fi ñu nekk di leen gatoon di leen gunge ci jataay ñuy ànd ak yéen ci jataay yi ak ñeneen ñi nga xam seen biir jataay bi ngeen ciy ànd ak Mame Fatou nii rek la fay daal ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di sant tamit sëñ Ahmadou Ndiaye mi nga xam seen moom la dalaloon ginnaaw tey biñ ko woowee jataay bi gis nañ yitte yi ni mu daal di xaw a xate ak euh, tey bi yitte yi jamono ji ko na xam ne fa mu daal Euh, ñu ko ci sant baax di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam se ne yéenay topp 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen jotaay waay euh, jërëjëf